maam yi liggéey nañ liggéey boo xam ne jar naa wax ay damel Samba yaa jéeri jorndee la histoire ak nasaraan bi ak xaritam jéeri sërica jéeye kànnaar sërica jéeye kànnaar hmm? nga xool nañ ko yóbbu mbul yaama nañu ko rey dóoree bal ba mu jekkali boppam

moo doon kannaar ak sëriñ ca jéey keroog la jéeri noonu bàjjanam toggal ma laa xam booba xamoon na du dellu mbul yaa maay mbul yaa maay mbul yaa ah, mbul yaa ma way mbul yaa ma way jéeri dem na jéeri sam na way jéeri sam mbul yaa ma muy euh, ñëwee super sabar ba noppi euh, def Defna ak euh, def Defna ben son ak Nyom Thierno Kouaté Willy Sakho Idrissa Diop Vieux Mac Faye ñu koy album Teranga Express de Dakar moo jiitu le gi am naa fa woon morceau Idrissa Diop am ñaari morceau

lébb gi moo yëngal réew mi moo yëngaloon réew mi waaw après ndëpp li doog a am ndër jàppal am ndër buddi am ndër mi am ndër jor am ndër ras am ndër ay am ndër am ndër am ndër yow mi jël siré dugg géej dem jaay sa bakkan andi jën jaaraama mooyee yow mi jël siré mënuma def nag li ma daan def mais mën na maa def daal loo xam ne comme tem lu am nii lu xew ci ay yenn coono yi walla lu xew ci àdduna bi daal war naa cee mën a participer comme yi ma jëkk def di xamal nit ñi li am ci géej gi ak yóos beeg yooyu bu demee ak li nga xamante ne ni moo war ci diggante ndimbal ak ndimbal ci bato yi ak pes bi ni mu war a demee ba lébu yi am ci njariñ réew mi am ci njariñ mënatumaa gis jën wuy jaar ndax lan mu ne yoos bi dem naa njaxte amatul ndi malay yërmande am na way bu may way ci batolo joolaa ma naan bato wekk jëmbil ngi law for maaw yooy damma en tant que marin ñu ngay jooy noppeegunu fub lébu jooyee waxuma laa ku dul lébu kon ni ñuy def nañu koy xalaat balaa ñu koy def te yuuxu naa it ne li ñuy wuti ci ñoom mi ngi ci ñun du jeex waaye dañ koo gisul boobu maa ngi woy morceau bu ñuy wax Gorée bi ma xamee ne maison d'esclave la fa nekk ci laa doon xool lu suma bët attan ci laa doon dégg lu suma nopp attan bi ma xamee ne maison d'esclave kërug jaam la fi jarak doon jaaral oh. ànd matuli mam ku ma làmb matuli ñu dem bari ram géej mam géej sim oh oh mam ku ma matuli mam ku ma làmb matuli maam ku ma làmb ndooy an nag ma tuli ñu dem bari dum géej salaamaaleykum maam géej sim la te oh, oh. ba ñuy sampali kan moo bëgg dañ ne ki ànd ñi ànd ak maxu nañu tàllal seeni loxo ñëpp yi waxoondoo ñu ne ànd keneen ku bëgg kenn tàllalul kon ñëpp ànd ak man loolu andi pal gi bi ñu may falit monsieur le maire nga fa woon gendarmerie nga fa woon ñëpp nga fa woon kilifa a nga fa woon bu ñu yëkk ñu yëkk ñu yëkkati drapeau bi ñëpp kontaan bésub keroog boobu am naa mbégte moo xam ni dugul ajuhi ajuhi ajuhi ajuhi suma quartier moo gën a garaaw ci quartier quartier yëpp parce que benn terrain bi ñuy footballé ñoom ñëpp ba yàllu jumaa bi fa la nekk à part terrain Oryx bi amuñu feneen fu ñuy footballé xanaa tool sëriñ ba fi la ñuy defi tournoi yi fi la histoire yi di am may may arrangé may yéegi ko wàcc des fois day metti ñu arrêté ma jóg dem jaar damay sonn sonn sonn sonn wala nit am ay problème ci man lay ñëw waaw ku am ay soxla ci man lay ñëw ku sa doom réer ñu andi ko ci man mu ne finance bi andi déchets toxiques yi ci géej gi ñaaw na lool externe yi war a wane jën wi day yàq seeni laaf dootuñu mën a naaw hey way indi ma njëkkan ñun studio yi ñu nekk dañuy liggéey liggéey yoo xamante ni dafay xala métti day doy waar mais léegi da ngay ñëw ci benn studio nga toog léegi buñ ñu branché woon affaire yi nii rek technique bi Amad si mën na toog léegi génn fi ay ay ay album ay son mais côté way côté way moom euh, des na ci parole yi quoi yi nga xamante ni moo war a yee doomu aadama bi mais léegi c'est un peu vulgaire bu ma sañoon ñuy wax loo xamante ni parce que Sénégal am na lu fi suñu maam yi bàyyi woy naa ko sax la fi maam bàyyi woon ba yàq na ko ba yàq na ko ndaw ñu sànku nanu wayoon naa it ni wàccaay yoo woy wàccaay bu ñu demee ba sa jeex mu nga xam ne ñu ngi akru samaan léegi sa jeex na